الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيو دلو سنتي يالا رك غيناو بي نيو نياريلو حاج Euh, xam naa ni comme sunu mbokk xaaj njaga dafay dem ci beneen liggéey. Mm-hmm. nu bàyyi ko moom mu dem ca ñun ñu des ci bii liggéey incha allah. Mm-hmm. xam nga moom yarqus bi qadamay ni. <laughs> macha euh, jumaa yi waxtu ah, jumaa yi comme nga euh, day jot. Mm-hmm. dañ koy bàyyi moom mu dem jëli jumaa comme ni mu ko daan defee. su ko defee ñun ñu des fii en attendant tey wuutu ko fi incha allah moom mu nekkal nu foofu yal na yàlla defal ko jàmm ci yoon bi. sàmm ko te barkeelal ko macha allah moom ku amul moroom la. Euh, mooy sama mooy sama sëriñ. <laughs> ndeysaan euh, di nuyu bu baax nag euh, sunu auditeurs yeeg auditrices yëpp di leen ziyaara macha allah. Mhm. di beral nuyoo Adja Ngone Diop di ko ziar. Mhm. di ko wax ne nam mën nañ ko Adja Seynabou Sarr itam kadaalika macha allah di ko ziar bu baax a baax. Mhm. Eh, di ko ziar suñu mag boobu ñoo bëgg nga ñaanal ma ko yàlla. yàlla Adja Seynabou Sarr. waaw suñu mag la te ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko. sutura tabaaraka la eh, xam nga. nee ko bés suñu jumaa jële mhm. euh, boo ca dindi woon la nga ca def mhm. kon jumaa ja duñ ca mën a julli jumaa tey mën na ah, na ñaanal euh, mook mook a ajaa ajaa tabaarakallah bëggul ma tudd turam waaye nag xaaj moor bis dana ñëw sant yàlla lool ci jëfam ko xeeb de waaw am euh, la dafa am benn jigéen bu nekk fii. Mhm. Euh, bëggul ma tudd turam mu ngi fii si Colobane. Mhm. Euh, nekk dend ak monument bi. Mhm. ku baax la yàlla na ko yàlla fay yiw. ba ñu bëggee karole suñu jumaa ja moo ñëw xool ko karole ko ci biir ak ci biti. tabaarakallah te bëggul ko tudd turam. day denc bankam rek. <laughs> day denc rek mais mais xam nga yàlla yàlla mu sirra waax faa. ku nëbbutu ku nëbbutu xam noo ko ku ñu nëbbit yàlla xam naa <laughs> yàlla yàlla fay ko yow macha allah euh, euh, di di ñaanal nag euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi def lu baax. Mm-hmm. alaaji jamono bii nu toll nii. Mm-hmm. léeg-léeg mm-hmm. nit teral ko. léeg-léeg nit teral ko. xam nga dafa am benn maa ngi ñëw ci daara ji. dafa am benn waa ñoom xaadimul quraan ñoom Ousmane benn association bu ñu mm. bu ñu taxawal. soutenir la daara day soutenir day daara. Mm-hmm. ñu joxe ci benn numéro téléphone. Mm-hmm. boo xam ni lu ca nit am mën ko ci dugal ñu temb dimbalee ko taalibe yi mm-hmm. ci tabaski beeg mm-hmm. yére yeeg yu demee noonu na solo euh, nit ñaa ngi góor góorgóorlu di ca taxaw bu baax a baax a baax a euh, ñu ñaan yàlla mm-hmm. joxewoon nañ numéro ba numéro bi fekk ne euh, ñu ne numéro ba dafa plafonné mais xam naa peut-être def ko déplafonné nañ ko wala ku ca bëgg a tàbbal su ko defee dinaa ko jox benn numéro numéro benn numéro muy numéro Oustaz Souleymane boo xamante ni bi moom mooy coordonné ba ko bokkal. Mhm. incha allah yàlla defal leen ci sutura ñu mhm. bi nga <coughs> laajoon sëriñ bi. mu ngi saas moom xam na fa ay yóbbante yu mhm. sa soppe di Omar Signane ca Komma ngi xox. moom tam macha allah ku lay bëgg la. ndeysaan Omar Signane wax dëgg yàlla moom tam soppe la. ak suñu sopp bële di Omar Mbacke ci Fouta moom tam day bàyyi xel jotaay bi. sax na dafa am na sama benn wayjur boo xam moom tam bëgg naa nga ñaan ko yàlla. ku ñu wax euh, Abdoulaye Badiane. nekk fii ci HM Grand Yoff di ko xam moom tam amul morom. ci mbaax alhamdulilah maanaam moom këram na mu demee boo nee góor dooni tati ci mbaax. est ni mel moom ku mat a ñaan la yàlla. nga ñaan ko yàlla moom tam. alhamdulilah incha xam naa maa ngi nekkoon doon doon laaj euh, Saas euh, Mor. Mhm. ne ko léegi comme dafa wax ne léegi maanaam dana baax ci politiciens yi wala comme doon sax. Mhm. bala muy dugg ci benn mbir bu am solo. ci dundam mu def listixaara. Mhm. may laaj est-ce que istixaara ak seet bi ñu xam Sénégal benn wala benn comme ça muy ndax différence comme ni ñu ko jaawal daal. incha allah. waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد نانا كوي الاستخار دو سوي كوي دي سو دو ريج كوي اكونوميزي تام دو نياك ما شاء الله كون نياك دي سو باخول نيت ورنا ام كونساي نكا نونو اكونوميزي دا فا باخ يق باخول دنگ كون فتبارك الله Euh, kuy diisoo itam doo ko rëccu la mhm. xaaba man istixaara mhm. kuy listixaar doo sooy mooy kuy diisoo du rëccu mhm. fa tabaarakallaahu kon istixaara moom fi ko fekk bi bàyyi nag yoo xam ne sax ba léegi ñu ngi ciy def istixaar même boo xamul dara sax nga am soxla jàpp ba sell julli ñaar rakk ñaan yàlla lii ma bëgg a def bu gënee ci man yàlla na nga ko jàppandal te may ma ci yoon mhm. su gënul ci man mhm. yàlla na ko génne ci sama xel mhm. te bu ma ci may yoon loolu rek boo ko waxee ci wolof sax doy na ndax yàlla dégg na ko waaw fa tabaarakallaa su ko defee ah, yeneen yi nga xamante ne ay jumtukaay la am na ci yoo xam ne mën nañ koo dégg am na ci yoo xam ne mënuñ koo dégg waaw ah, koo xamante ne li ngay def boole woo ci yàlla boole woo ci lenn kooku la ngay def mënuñ ci mënuñ ci d'accord waaye am na ci Euh, wax yu ñu wax ñu ne kaana nabiya min al anbiyaai mhm. yaxuttu xattan mhm. fa man waafaqa xattuhu xattahu mhm. faqad asaaba <laughs> ah. ah, loolu xam-xam la ndax xam-xam daanaka la ñuy bind ci téere yi dañu wax ne moo ci gën tuuti téere yi enregistrement la rek waaye bari na mag ñu dem yóbbaale seen dënn kon xam-xam yaatu na am na ba léegi ñoo xamante ne ni ñu ngi ci mm-hmm. ñu ngi ci am yoon mm-hmm. waaye am na ci ñoo xamante ne nag wax dëgg yàlla ña leen nàmpal bokk ñoo ngi ñun yoon mm-hmm. yoon woowu nag la yonent bi wax ne képp koo xam ne gëm nga ko araf dégg nga wala koo xamante ne kaahin nee na képp ku ko gëm soo moytul génn nga ci li ma nekk kon yal nañ ci yàlla musal ko ci gën yàqu la waaw xam nga dañuy toll fu nga xam ne nit ñi dootuñu tànnaloo yàlla dañuy dem ci nit ne ko defal may pexe ndax diw la féeteel te li wolof di wax nan bëgg gu du mat ngor mat ak ay jafe bëgg du mat ngor mat olof olof dañuy fonto ñu Serigne Cheikh néna olof sa bu lébé rek jëlal Serigne Cheikh néna olof sa bu lébé rek jëlal mais buy waxtan téyal walaay xam-xama woobu bëgg du mat xel mat. xam nga tey jii nii bu ma bëggee Moustapha mm-hmm. ñu ñëw élection yu jublu si. Mm-hmm. ma bëgg Moustapha Ndiaye. Mm-hmm. muy jongante ak euh, Hadj euh, Mor. ñuy jongante te man bëgg gi ma bëgg Moustapha Ndiaye. jëm euh, bëgg gi tax na duma xool ay. défauts yi ay défauts qualité ngay wax ci moom waaw te loolu li gën mooy ki fi gën. nañ ko fi teg. waaw ku gën ci réew mi. nañ ko fi teg. macha allah yooyu nag mooy mooy suñuy jafe-jafe ñun mm, waaw moo tax dañuy dañuy ñaan borom bi rek sant ko ñun dañuy far mm. waaw ci ci far gu ëpp mm. waaw léegi nag yooyu moo tax istixaara di lu am solo mm-hmm. Mm-hmm. istixaara ñaar day ñëw taxaw ci sa kanam mm-hmm. nga ni yàlla ba bu ci gën ah, parce que xamoo yow xam loo sunu borom xiirtal la ca ba ci gën nga nangu mais bu fekkee dëppawul ak sa sa bëgg-bëgg mais moo gën moo gën ci yow ci diine wala ci àddina nga nangu ko léegi nag ñun dañuy dem ci gisaanekat bi mu ne la ah dëgg la de lii laa gis mais mm-hmm. mën nga ci génn ndax nangam. waaw mm-hmm. def lay dëgg la ay sarax daal. waaw ay sarax. Mm-hmm. su ko defee mystique loola. def loola lu nekk. fekk ne li gën mooy nga tànn ki gën. ñun nag li neex. lu ñuy wër mais du ñu seet li gën. ñëw na ci suñu lekk. ñëw na ci suñu sol. parce que col gii moo nu neex. mais bokk ak col gi gën. Oustaz Mor góor ak góor dañu ma ñun Sénégal xamuñu lu baax ci yaram la. lu baax ci lu baax ci biir mais lu neex ci pët lañ xam. jeex na. mais xamuñu lu baax ci biir de. te loolu mooy naaw ci pët lañ xam. te loolu mooy mooy mooy xam nga ca dañoo dama nekk ca dëkk bële ca Maroc. ma ni waa ji may ma café mu indi café daal di indaale suukar teg ci wet gi. d'accord mu ne ma tashrabu qahwa bi sukar. fa qultu eh naam. mu daal ne ma. alaka arba'in sanna. qultu lahu naam. kayfa tanaal arba'in wa taakulu sukar. الدسم ان شاء الله والملح نعم اسئله مهمه لا جام سلام ما نبروني نيت كي دافا ورا سيت لي گن تا بنيا سيت لي نيه نيه ما شاء الله آه. استخاره نك مو گن نجبري استخاره تم سنه يونت بي علي سلام تم دوم ديغلا جولي نيور كو داف خم استاذ سانغ بي ني گن دافا بن بات بام سولو ا آه، نيو نيون بو ني كامباني الكترال bu ñu demee ba ñettee ji lañu ñu tëj campagne yi. Mm-hmm. guddi googa dañ koy def. Mm-hmm. démonstration de force. Mm-hmm. def tuddee ko meeting de clôture. wane sa doole. fekk ne guddi googu. guddi la bu nga xam ne guddi matu la. waaw ah, nga dëgg guddi matu la. dañoo moom la oustaz junj léegi. mu ne dañu war a ñaan suñu boroom. mu tànnal nu ki baax ci nun gën ci nun ki baax ci ñun. Mm-hmm. gën ci ñun allahu akbar ñu tànn loo ko suñu borom. Mm-hmm. mu tegal nu ko. Mm-hmm. su boobaa yàlla mooy mooy façonné xol yi ba ki baax. gën ñu teg ko. même bu ñu ko mën def guddi clôture bi. mais am na benn guddi bu bu ci noppalu. kooku a def. bu ñu ko mën a def. mais nag oustaz oustaz dafa métti mais ñun tam ñu bari ci ñun bëgg du ñu wax ñu bari ci ñun bëgguñu réew seen ba lañ bëgg. ban waaw yow. tabaarkalla <laughs> su ko defee euh, mooy loolu bu loolu amoon rek. jàmm dana bari mhm. ndax buñ demee ba dernier jour noppalu mhm. ñu yëg ne kat réew mi moo soxla mhm. te bu réew mi jege lépp jag ku nekk am nga sa mbër nag yàlla kuy sa ku gën ci réew mi yàlla nañ ñu ko defal mm. loolu leader politique bi am pas-pas ci ci ci ci loolu mm-hmm. militant yi ci gannaawam am pas-pas ci loolu ñu ñaanal réew mi mm-hmm. su yàlla dogalee li mu dogal nag mm-hmm. ba pare bu booba ñu respecté ki ñu yàlla jox donte xale bu ndaw la ndax njiit yàlla koy tànn yow bi ñuy tànn ñëpp tàllal nañ seen loxo yàlla joxu leen yàlla jox benn nit waaye nga ne kii maa ko mag wala kii fii la bokk wala kële la bokk waruma jiite loolu ñi nga xamante ne ñoo gëmul yàlla sax mm-hmm. euh, ñu ngi koy respecté ko mel ni John McCain mm-hmm. bi ko Obama gagné mm-hmm. ba daf ne mbokkam yi daf ne mbokkam yi nañu respecté opinion américain bi waaw nañu respecté opinion choix américain yi moom lañ tànn nañ ko respecté nañ ko jàppale nañ ko protéger ak njabootam pourquoi ñun kuñ jiital rek yàpp ko tayit wa in ta'ammara aleykum abdan abashiyan waaw loolu bi wax kon yonent bi nee na bu ngeen nekkee ñett sax wut leen njiit mm-hmm. waaye donte koo xam ne jaam la xabasi yi sax mm-hmm. bu fekkee moom lañu wóolu ba tànn ko na ko mm-hmm. ñëpp topp bu ne waaw na ñëpp ne waaw bu ne déet na ñëpp ne déet waaye senegal ku ñu jiital yab la ku yar cër ñi yab loolu mooy li nga xam ne tey moo ñu gaañ amatuñu kilifa kon fa tabaarakallaahu alam yani lilladina amanu an taxsha xuluhum li zikrillah tey tey mbas mi tey ku nekk dana ko jàngat nitu àddina yi nitu zahir yi ku nekk dana am na ko jàngate mais nitu diine yi nan lañ ko war a jàngate man dama jàpp na ñun du xeex mbas mi xeex mbas mi ñun du suñu suñu mbir ndax laata su but dëhëra bu leen ŋàññi jamono yàlla mooy jamono lu nekk moom la kon taala an yakuna fi xalq fi mulkihi maa laa yurid yàlla jomb na lu fi nekk te mënu ci dara lu fi nekk moom la neex fa tabarakallahu moo tax xalif général Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla yokk fanam yokk wéram ak mboolem kilifa yi mu ne lii du du du du du balaa du nat du mbas balaa la maanaam lu yàlla wàccee la lu yàlla wàccee nag kenn du toog fële di ko ayibal di ko xas lan moo ca war mooy di moytu li nga xamante ne moom la doomu aadama war a def. Mhm. di moytu respecter barrières yi. Mhm. conseiller docteur yi ñu bàyyi ci xel. Mhm. ndax. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما دكتور ak borom xam-xam buñ leen respecté wul dégg nga duñ la conseiller conseil bu normal kon nañu bàyyi xel suñu docteur yi respecté leen nañu bàyyi xel suñu njiit yi respecté leen su ko defee nag ñu xoolaat suñu bopp xool lan moo waral lii yonent bi salaa sallam nee na albalaa laa yanzilu illa bi bi zambi wala yurfau illa bil tawba nee na nattu du wàcc lu dul ci bakkaar yu bari mhm. te ku nekk xam na ne àdduna bi li fi nekk ci bakkaar léegi kenn mënul wax nun toll kon euh, fa tabaarakallaahu mhm. li ko mën a yëkkati mooy tuub mhm. nañu tuub dellu ci yàlla mais nit ñi dañu dëgër bopp te xamuñu li ñuy ñuuxu lan la mm-hmm. feebar bi yàlla moo ko yebal mm-hmm. mbindeefu yàlla la mm-hmm. ku respecté yàlla dellu ci yàlla yàlla teggi ko fi bu ñu ko deful ak ku mu a doon nag moo xam kilifa àdduna la moo xam ku mu doon kilifa diine la soo delluwul ci yàlla man dama wax président de la république sax na saxal guddi gu jot mu jàpp sangu ba sell jàpp julli ñaar raka mm. ñaan yàlla lii yal na ko fi yàlla jëlee naka noonu soxnaam def noonu naka noonu ministre yi def noonu naka noonu kilifa diina yi def noonu mm. man nag ci wàllu diina ji ci ci ci wàllu diine ji ci diggante boobu mm. di nga jàll ci wàllu diine ci diggante boobu euh, dafa amoon benn jamono bekkoor am ci réew mi mm-hmm. ci réew mi mm-hmm. euh, mu gëj taw lool mm-hmm. ci jamonoy président Abdou Diouf Euh, ma dégg ci seen Cheikh mu ne dafa dem seeti président Abdou Diouf. Mm-hmm. président Abdou Diouf ah si ñaan leen de. Mm-hmm. dëkk bi mar nañu. Mm-hmm. Serigne Cheikh ni na ko yaa ci war a jiitu parce que yaa nu ëpp responsabilité. dëgg la ak ñu ma dëgg. wallaay wallaay wane ko boo boo boo summee sa mbubb sukk ci sa kanamu borom. wane ni hmm. jaam rek nga. Hmm. wane ko ni ko jaam nga sa hmm. borom dafa soqali réew mi parce que yow lañ ko dénk. Cheikh ak Oustaz Mor xam nga Oustaz Mor mën na ko wax fii. journée de prière yi wax nañ ko fii. boo xam ñëpp koy defandoo. parce que addu'a isa amma. nafa la ñuy wax donc bu ñëpp commencé woon tuubal yàlla. saak sar ñaan ko man gëm naa ni balay une semaine affaire bi jeex. Firawna sax Firawna ba muy waaja a dee ne laa ilaha illallah tàmmewu ko foofu xamoon na ne yàlla rek mooy yàlla <laughs> firaw na xamoon na ne yàlla rek mooy yàlla mais bés bu amaan problème bu ko jaaxal day dem ba ci fu wét mu summee ko ba set ne yàlla <laughs> sama làmmiñ ñi rëy ma topp sama bakkan waaye xam naa ne yaa sa borom comme kii bi métti na nag tawal yàlla sagal ko taw ah naka kon ki gëm yàlla mhm, kon li ñuy def nii mhm. président yeeg ministre yeeg mhm. responsable yeeg ñëpp ñoo ci war a jiitu docteur yi ñëpp nañu tuub ñun ñëpp ku nekk yëg na yow mi sa responsabilité kilifa diine yi noonu secteur informel bi man ñooñu laa gën a gën a gën a sikk mm, waaw ndax li ma gis mooy cadre yi ak mbooleem ñi nga xamante ne jàng nañ nasaraan mm-hmm. ak mboolem ñi nga xam ne yeewu nañu mm-hmm. ñëpp ñu ngi moytu mm-hmm. waaye ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci côté informel bi wala ñoo nekk ci ñi nga xamante ne nii xaw nañoo jàng ay ñaari aaya ñetti aaya bëgg wane ak gëm yàlla goo xam ne doo ci boole moytu dégg nga ñooñu ñoo ci gën a gaañu kon li jaadu man dama jàpp ne président ni mu wanee raxas loxoom ba ñëpp gis ko xalif général Tidiane noonu la war a def xalifa général de Mouride noonu la war a def. Mhm. dégg nga nga dem ci ñeseen ci ñoom ñëpp ñu def ko nit ñi gis ko. Mhm. waxuma sax euh, ñu def ko en privé ndax xalifa général Tidiane sax boo gisee mu ngi sol masque am. Mhm, buy wax itam ci loolu lay wax nañ respecté barrière yi. waaw kon euh, man jàpp naa ne sëriñ si nañu wax ak taalibe yi. taalibe yi sëriñ si nañu waxaat am na euh, jamono bi fi xewoon ba sëñ bi xaj sëñ si sëñ Muntaxa. ba mu xàjjee njawoot gi ñëpp a génn jéggalu mm-hmm, dal kon nañu xàjji lu ëpp Touba nañ xàjji réew mi yëpp mm-hmm. waaw kilifa diine yëpp wax ak askan wi mm-hmm. ñu xam ne lii lu jara moytu la moytu gi nag du moytu pour bëgg dund rek mais moytu ngir yàlla mi ñu boole fam waaye moytu itam ngir suñu diggante suñu borom réglé wu ndax fi mu toll nii xamuñu ndax yàlla daf ñoo jéppi mhm. xamuñu ndax yàlla dafa am lu mu ñuy pareel mhm. kenn xamagul fu ñu jëm waaw waaw ah, ah, waaw kon nag <laughs> waaw kon nag li jaadu fi mu toll nii mhm. mooy ñun ñëpp ñu jël mbir mi au sérieux ñu ngi koy jéem a régler ci wàllu zahir ci wàllu adduna mais nañ ko régler ci wàllu diine suñ ko réglewul ci wàllu diine du fi jógee ndax am na loo xam ne yàlla rek moo ko mën a téye yàlla moo xam fu mu nekk mhm. yàlla moo xamit naka la koy naka la koy naka la koy dindee mhm. kon fa tabaarakallaahu loolu laa ne woon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ne jot na sëkk mhm. ñu delluwaat ginnaaw waaye doomu aadama fi mu ne nii xam-xamam ak pexeem ak man-manam jàpp na ne lu ne moo ko ëpp doole loolu moo tax tey boo demee ci occidentaux yi ñi ci ëpp doole tey ñoo gën a néew doole mhm. mënuñ ci feebar bi dara ñoo ci gën a loru te it yàlla buur ba maandu la mhm. nekk ci àddunaam bi mhm. di ko yàq lu la neex nga def ba yaakaar na yow mbon def laa jig mbon mm. jigul kenn jigul kenn dëgg la yonent bi salaa salaam ne ne ida usnida al amru ila gayri ahlihi fantaziri saata mm-hmm. mm-hmm. waaw mm-hmm. lépp lu ñu teg ci lu dul yoon xaaral waxtu wa kon àdduna bi yàqu gi bu ëppee ak coxor gi coxor gi kenn dimbaletul kenn kenn yërëmatul kenn mais mais oustaz ma laaj la tuuti looy conseil ñi xam ne gëmuñu ko ñoom am na ko gëmut moo tax di jël duñ jël seen seen disposition ñu war a jël duñ ñooñu tey ñooñu tey nañ xam ne ku dee ñoo ko rey Mm, loolu musiba la moom waaw ah. ku nanguwul la jël protection mm-hmm. ku dee yaako ko rey mm-hmm. ku dee am nga ci part de responsabilité ndax war ngaa fexe ba même bu fekkonte ne feebar bi yow la jàpp mm-hmm. mu la yow kenn waaye feebar bi mm. gravité bi mooy euh, bu ñu nee nañu takk masque man li may li may wax ci ci ñu bëri nañu takk masque nañuy raxasu nañu respecter mesures barrières ma ni d'accord Oustaz Moustapha gëm na ni moom feebarul waaw Oustaz Moustapha gëm na ni moom feebarul kon jaralu ko mu takk masque mais dañu koy ñaan moom mu bëgg bakkanam moom mu jàpp ni ñi ci des dañoo feebar bëgg ñu wàll ma incha allah am solo dëgg parce que bu ñu firee bu ñu firee al ihsaan hmm. an ta'buda llaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka nga firi ko dëgg dëgg dëgg hmm. mooy yow feebaruloo hmm. d'accord alhamdulilah feebaru la yàlla sàmm na la feebaru la mais fexeel ba ki feebar bu mu la wàll mooy nga jël sa mesure barrière donc léegi yow jàppal ni yow feebaru la mais ñu ci gis ñëpp dañoo feebar mais man kenn du ma wàll pour nga sauver sa bakkan nga jël say say say say dispositif oustaz ma la ci garaaw mooy fi mu toll nii xam nga yéen sax am pa mais ñi ñu jóg ci oto yi transport commun bi moom yàlla xam na duñu ko respecté ko da ngay sëg dugg takk benn masque da ngay dañ lay xool sa yow dañ jàpp ab tubaab nga xam ne lu tax ngay takk ma solo yàlla maye passe taxi jëlal taxi nga bàyyi la xam nga xam nga xam nga <laughs> démb dañoo julli euh, timis ba pare. Eh. am kenn ku ma wax ne ma bi ñu jullee bu ñu sëlmalee bi ma gestoo ñi ci jàkk ji gis naa juróom-ñaari nit yu takkul mask hmm. xoolal loolu. ma ne ko loolu duñ ko bàyyi noonu. ajana ah, la dañ koy fàttali. Hmm. Hmm. dëgg la balaa imaam di taxaw ni ñu doon wax sa sawu taraasu suddul xalal. ñu wax ne irfaul kamaamaat irfaul kamaamaat macha allah mhm. parce que jël leen seen masque mhm. Mhm, takk leen ko yonent bi ni mu doon xuuse ci biir sàpp yi defaral nii defaral nii defaral lii waaw imam bi mu jël ay matukaayam ñi nekk ci biir jàkka ji mu fexe ba ñu jël seen masque muur seen bakkan oustaz bu fekkee ñu ne sallam moo njëkk a takk masque li la ko wax parce que li mu bëgg mooy jàmm doomu aadama yi la bëgg <laughs> leer la loolu waaw jàmm doomu aadama yi bëgg jàmm doomu li ma la mën a wax daal gis nga képp koy moytu ku ku feebar bi jot bokkuloo ci képp kuy moytu ku feebar bi jot bokkuloo ci ku feebar bi rey bokkuloo ci waaye képp ko moytuwul bu la feebar bi jotee yaa lu dal yaa ko teg sa bopp dëgg la te di nga layoog sa borom ëllëg mhm. dee rek noppalu déedéet xeetu xaru la nag waaw la xeetu xaru la koo xam ne itam euh, caaxaan yor nga jàngoro bi fexe ba wàll ko nit mhm. bu ëllëgee bakkanam boobu da nga ci am part de responsabilité. Mhm. te yonent bi yàlla nee na ku rey jullit. te mhm. tay ko. Mhm. jahannama mooy sa kon nañu moytu te it. koo xamante ne ni lépp luñ la jox ci information nga gëm ko mhm. te buñ la joxee beneen information nga ne du dëgg mhm. da ngaa xamul li ngay wax ak oustaz bala ñu ñu ñaan ñu génn ci ñu boole ko ci bañ a bañ a rek maanaam maanaam protocole bi bàyyi ñaan yi loolu mooy ñaan tam lu am solo mhm. mbir mi mooy li ma wax léegi ci wàllu yàlla yàlla nee na wa ma kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfirun du leen bëggal fekk yéen a ngi kon nañu baril astaghfirullah mhm. dégg nga mhm. yonent bi salaa sallam ne man istabtaa rizqahu fal yastaghfirillaha mhm. ku sa wërsëg yéex del bari istighfar yàllaa ko garantil istaghfiru rabbakum mhm. innahu kana ghafaran mhm. yursil sama alaykum midran wa mhm. yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la tarjuna lillahi waqara ah kon suñu bëggee mbir mi delluwaat na mu meloon bu ñu sukkandiku ci suñuy pexe bopp kese yaakaar ne suñu xereñ ak suñu xel war nañoo mën a génne ak jàngoro ji loolu du yomb de li ñu mën rek mooy sukkandiku ci kàttanu yàlla mag ñi dañu wax soo ñëwee ci kër te ñemewuloo xaj ba laqatul ci borom kër ga ma gën a waaw su ko defee xaj ba du la mën a dara mais jàngoro ji mhm. kenn mënu ci dara ku dul yàlla subhaanahu wa taala te loolu tey adduna bi yëpp yëg nañ ko mhm, mu dee Amérique bi nga xamante ne tey moo fi ëpp doole mhm. tey ñoo gën a néew doole ci euh, jàkkaarloog feebar bi tey boo xoolee tey ñoom ci li ñu nekkee bu fekkoon yàlla dimbale leen ñu am gis-gis duñu embargo nit ñi mhm. xañ nañ ñi dund mhm. xañ nañ ñi faju mhm. xañ nañ ñi lekk di leen bombardé di leen seetaan ñu leen di foye loolu moo baaxul doomu aadama yi ci seen bopp fi mu toll nii ñoo jéggi dayoo te yàlla nee na wala taatadu inna allaha la yuhibbul muhtadin li ci des nag mooy Sénégal ñu respecté wante wormaalante démb dégg naa ci sama baay maam Alpha Sy yal na yàlla yokk fanam ak wéram rakku sëriñ yàlla yokk fanam ak yàlla sàmm kilifa diine yëpp may leen fan ak wér euh, dégg naa mu ne euh, yonent bi salaa sallam nee na man ayyara axaahu mm-hmm. lam lam yamut xataa yaamalahu mm-hmm. waaw waaw képp koo xam ne ayibal nga sa mbokkum jullit mm-hmm. doo dee lu dul da nga def ayib boobu kon doomu aadama na fonk doomu aadama loolu ñëpp laa koy wax moo xam état bi la moo xam politicien bi la moo xam presse bi la ba ci journaliste yi loo xam ne du dëgg wala xamuloo ne lii am na wala amul même bu amee sax dégg nga mag dañ daan suturalante mhm. sutura boobu nañ koy bàyyi xel waaye xaw sutura baaxut kenn bëgg ko ci sa bopp mhm. bëgg ko ci keneen parce que man satara moo tax waaw yonent bi ne ku ku suturaal jullit yàlla suturaal la mhm. kon nañu suturalante bépp bépp bépp crime boo xam ne àggul ci kilifa mënees na koon négocier ba mu des lu àgg ci kaw ba ñëpp yëg ko loolu moo tax tey bari na ko juum juumaat juum juumaat dégg nga xëy nekk ku baax dégg nekk ci biir nit ñi mhm. waaye nit ñi léegi li ñu bëgg mooy koo xam ne du juum te mu wóor na ne yow boobu yete yaa ngi juum ma ah? ni lesi <laughs> ma saa aqat ah ma ni lesi ma saa aqat amul wa ma ni lesi turja saja yahu kulla <laughs> amul <laughs> ah doom aadama mm, matul kon nañu bàyyi xel bu baax mais fi mu toll nii dañu topp tubaab bi mm-hmm. topp itam wéccat mm-hmm. waaw ku nekk di jaay sa journal mm-hmm. ku nekk itam di jaay ay bu jàmbur da ngay gis sax koo xam ne diw laa faral politique mm-hmm. dégg nga dem di lëñbët keneen mm-hmm. dégg nga pour noo ko yàqee mm-hmm. ngir sa ki nga àndal kontaan nañu fexe li yàlla kontaan moo gën ñu fexe doomu aadama yi kontaan laa taata rida al maxluqina bi suxtil xaaliq waay waay bu leen topp ngërmande doomu aadama yi ngërmande ñu ñu bind ñi ba ba ba ba meru yàlla duñu duñu ci fekk musiba la yonent bi salaa salaam nee na yàlla nee na su ma meree lu mu gàtt gàtt dina àgg ci juróom-ñaari sët waaw akbar waaw nee na su ma kontaanee du am fu mu yem. waaw waaye su ma meree lu mu gàtt gàtt dina àgg ci juróom-ñaari set. kon nañ moytu merum yàlla. nañu xam ne àdduna du kër ni ko ma Abdou Aziz waxee. Mm. àdduna du kër te ku dee jeexal nga. Mm. te dañuy wax ne alxayru kulluhu fil wujudi. Mm-hmm. waaw tous les bonheurs mu ngi ci existence fekk yaa ngi dund mm-hmm. dégg nga mën nga am xéewal mën nga jaamu yàlla mën nga am yiw boo xasee dee dégg nga ñàkk nga mm-hmm. bu fekkee da nga fee sàccoon bàyyi ko fi mm-hmm. su fekkee da ngaa loroon nit ñi bàyyi ko fi ak lu mën a doon dégg nga boo demee yàlla dana la ko topp mais mais aussi ñi nga xam dañu ut ay milliards nag ci ak doomu aadama ba bàyyi ko fi ñoom luñ seen luñ seen ëllëg loolu yëpp ñàkk a xam te dund gi dafa yomb dund gi dañ ko war a simplifier dégg nga yonent bi neen lu suur kenn lekku ñaar la lu sur kenn rek lekku ñaar la kon nag nañu fexe ba xool li nga xam ne doy nañu ci dund non non non ko kenn moom ah. sallallahu alayhi wasallam kenn nañu fexe ba am loo xam ne daañ ko mën a suturloo li ci des ñu bàyyi ko suñu askan nit day bëgg askan mm-hmm. askanam mm-hmm. bëgg sa njaboot mooy fexe ba bàyyi leen fi loo xamante ne nii mm-hmm. bu ëllëgee ñoom daañ ci mën a jëfandu dégg nga bëgg sa mbokk ba ba nga xamante ne dundam dana jàppandi maa ngi fàttaleku 2000 bi président Abdoulaye Wade ñëwee. Mm-hmm. bi mu ñëwee def ne man de li ma fi fekk ci xaalis mm-hmm. xaw ma nu ma koy def. Mm-hmm. dégg nga xaw ma nu ma koy def. dégg nga ak itam bi mu fi jógee mu ne ku yor réew mi ñetti weer. doo mën a doo fay salaire xoolal loolu. <laughs> xoolal ñaari wax yooyu ah <laughs> bi ci topp mooy bi ci topp mooy gis nga bu ñu ñaanul yàlla jàngoro bi yem fi ah? adduna bi tey mille milliards yu ñu leb nii. budget yu bari lañu kii. ministre fonk ah budget yu bëri la ñu nanguwaat dellu pour pour milliards ñu ngi dajalaatu boo xoolee tey Russie ñu ne denc nañ sept cent mille sept cent mille milliards de dollars wala sept cent milliards de dollars ko ñoom pour que bu ëllëgee bu ñu gisul dara euh, ñu xam la jàpp man leen yoolu bi wax nañ ko xadis bi wax léegi wala ala man iqtasada ah, bi nañ kuy économiser mhm. doo ñàkk ah pourquoi état bi du ñu am benn plan boo xamante ne dañ ci sóoraale waaw mmh. bu jafe-jafe amee ñu xam fan la ñuy lijjante suñu mbir ku euh, feebar bii nii ku mu waarul dara dootu la waar waaw yàlla rek moo ci man dara yàlla rek moo ñu mën a taxaw yal nañu yàlla yërëm te teggil ñu ko waaye itam bu fekkente ne àllaaxira day bëgg a ñëw te nit ñu sóoraalewuñ ko man mmh. na am bés penc di bëgg a ñëw man na am àdduna du tukki yàlla waxu ko kenn waaw wa ma tadri wa ma saat ah? waaw waaw kon fa tabaaraka fala taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxaru inna allaha indahu ilmu saati yàlla moo xam bés ben ci kañ la kon fa tabaarakallahu nañu waaj bala ñoo waajal comme dund dund la mhm. boo dee dem aljana boo dee jullit mhm. bu ñu deewoon léegi dama fekk ñu ci lu neex yàlla itam ah, garaawut waaye li garaaw tey mooy mu fekk ñu ci loo xam ne neexul yàlla te yubasul maru ala ma maata alayhi mhm. ku nekk ca la nga faatu ca lañ lay atte kon ku ci nekk war nga concentré wu say farata say lawaasim nga nekk ca li yàlla digle nga nekk ca li mu tere nga bàyyi ko ndax yàlla bu dee alaxira doon teew léegi itam ceew nga xam ne yow apt nga pour dem aljana ndax fa man yaamal misqaala zarratin xayran yarahu mm. ku def lu baax di nga ko gis a mm. koo mën a doon mm. ku def safaan itam di nga ko gis a koo mën a doon waaye li wértu wóor mooy yàlla nee na lu ngeen jiital ci lu baax mm-hmm. bu ëllëgee di ngeen ko fi fekk wa maa tuqaddimu li mm-hmm. waaye huwa xayran mm-hmm. da di fekk mu gën a baax waaye itam wa azama ajran fa tabaarakallahu kon li banque di yokkal ñi nga xam ne ñoo leen dénk xaalis yàlla nee na maa leen ko dàq maa leen ko dàq ku ma dénk dara soo ñëwee di nga fekk dara lu ci manqué te dana falo ashru am saaliha waaw ah, kon fa tabaarakallaahu xaaj euh, mor ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant xaaj Moustapha di sant maam Maxtaar mm. di sant itam mboolem ñi nga xam ne yéen a bokk liggéey bi mm. di leen ñaanal yàlla mucc ak mucc le di sant itam kilifa kër gi mm. di ko ñaanal yàlla mucc ak mucc ak njabootam di ñaan yàlla eh, yal nañu yàlla sàmmal suñu réew benn benn baat bëgg ñu taxaw ci mu suñu darsu mooy li mu wax ne mi ngi ko jàng ci sëñ maam Alpha Sy mooy loo ŋàññi nit loo ŋàññi nit mooy saa yoo taraxalee nit mbax benn mbir sunu borom dina la ko nattoo bëccëg la mu dal la dëgg la loolu daf ñuy pousser mm-hmm. Mm-hmm. pour que ñu xam ne mm-hmm. di suturaal nit dafa am solo dafa am solo xam nga li li yonent bi waxoon Abu Dharrin mm-hmm. bi yonent bi déggee Abu Dharrin mu saaga ndey kenn mm-hmm. Mm-hmm. kooku boole ko yonent bi sallallahu alayhi yonent bi waa Abu Dharrin mu ñëw mu ne ko ayartahu bi ummi yaa tudd lii ci ndeyu jàmbur yaa tudd lii ci ndeyu jàmbur mu ne xew di xool mu ne ko ndekete lislaam deful dara ci yow Mm-hmm. waaw ça loolu for na de. Mm-hmm. ndekete l'islam maanaam maanaam bi ngay woote woo. Mm-hmm. théorie deful dara ci yow. maanaam maanaam jëriñagu la dara. parce que daf ne fii innaka. Uh, inna fii ka. xulqun jaahiliyya misluka haadaa. waaw am na nu mu ko ko waxee. ne ko ne ko ne ko ne uh, jaahiliya mu ngi des yow. fii kum ruum jaahiliya. fii kum ruum jaahiliya. ne ko ba léegi yaa ngi des ci loolu maanaam l'islam bi nga dugg mhm. defalagu la dara maanaam tëggagu la fompagu la raxasagu la mhm. te ba nga ci duggee ba léegi nga bële yaa ngi continuer di di wax lu ñaaw mais ne sax ñun tam duñ def autocritique suñu bopp mm-hmm. xool est ce que lii tam ñun est ce que ñun tam lislaam tëgg nañu loolu moo tax man ni nañ ci dellu si waat mu nekk suñu darsu tey mm-hmm. am na solo tabarakallah am na solo trop yàlla xam mu nekk suñu tey mm-hmm. tey eh, ñu bëri li leen lor ñaari baat rek la mooy ban ak ban mooy micro ak écran waaw ba nañu sànq dama jamono bii ñu toll nii ñu ci bëri ñu loru micro moo leen lor ak écran ak palte parce que réseaux sociaux yi ku muy tur moom eh, mooy micro écran waaw <laughs> ah, dëgg la nga dëgg boo téye sa micro nii sa caméra nii. ak sa micro. di wax. te li ngay wax nattuloo ko seetuloo ko. buñ la dëppee caméra wala ñu dékkalee micro ngay wax te li ngay wax seetuloo ko. Mm-hmm. wala nga yor sa téléphone ak wala sa kii. Mm-hmm. loolu mooy li ñuy gaañ. Mm-hmm. Euh, wax tuuti. te mu am njëriñ. wax tuuti. te mu am njëriñ parce que tam xam nga al lu ci yéen tamit mm-hmm. ah, man sal saa min lisaani wa yadihi mm-hmm. loolu mooy dëgg-dëgg jullit mm-hmm. koo xam ne fex nga ba sa bakka sa doo ci loru benn jullit sa loxo doo ci loru benn jullit kooku mooy dëgg-dëgg jullit boo koy wër jafe na Sénégal nag wax dëgg yàlla loolu c'est dañu wax ne doomu aadama ñett moo ko sonal mooy lu mu def ci biiram ak lu ko lu ko siiwal ak lu ko fi saxal waaw ñett yooyu <laughs> moo ko sonal lu mu def ci biiram fu mu mën a jëlee alal moo xam lew na moo la xam lewut bu amul sens dëgg dana ko wuti ba ca topp mooy na fi na dégg nga lu ko siiwal na àdduna yëpp dégg waaw ña ko ñëpp gis ba ca toppit mooy dégg lu ko fi saxal mooy na fi am njaboot njaboot sax yu ko wutu ñu naan mm. kii diw diw mm. mooy maamam donte ceddu la boo xam ne daawul jaamu yàlla sax mais na ko nit ñi dégg mm-hmm. kon li am solo mooy fi mu toll nii mm-hmm. ñu delluwaat ginnaaw mm-hmm. Mm-hmm. xam ne fonkante respecté wante joxante cër mooy mbir mi mais li fi mag ñi liggéey yoon bu ñu amul sens daañ dajeeg mag ñi sëgg am kersa lool am kersa ndax magum jëmm ñu yar la nga dund ba nekk kilifa xëy àdduna tax nga yàq li liñ la yaroon yëpp mhm. di saaga mhm. di wax lu bon di mhm. tuumalaate di wax loo xam ne rafetul loolu ñun ñëpp war nañ ko moytu ndax yàlla li fi nekk yàlla yëkkati ko maa ngi jégalu nag ci kaddu yi bu fekkente ne ñàkkee naa teggin ndax dañu wax ne Sénégal moom li bëgg mooy saalix waaye bëgguñ muslix képp koo xam ne ku sëree ko baax nga bëgg nañ la waaye ku baaxul moom day nga Euh, kuy képp kuy baaxal rek bokkoo ci mais mais mais loolu nag saas lu garaaw la wa maa kaan rabbuka li yoxlika al qura wa maa rabbuka kaan rabbuka li yoxlika al qura bi bi zulmin mm. wa ahluha muslihun waaw mm-hmm. neen du ma benn xeet boo xamante ne nii mm. dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy def lu baax mm-hmm. tere lu bon mm-hmm. waaye loolu ku koy def léegi ñu sikk la. mais mais nag oustaz kon ñun. des maa ngi baalu àq ñëpp. di di jéggalu ñëpp fa tabarakallah xaas Mor yal na yàlla doole tawfiq. xaas Moustapha jërë ngeen jëf. macha allah yal na yàlla fay nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa waaw xam naa kon ne xam naa ñu sant lu baax Oustaz Mor tam mm-hmm. sant tam Oustaz Mor si macha allah ci exposé ba am suñu def yàlla yàlla fay ko yiw mm-hmm. tànk yàlla ngay muy tànk yiw mm-hmm. def tànk yi jéggale bàkkaar tànk gudd fan yëpp mbaax incha allah macha allah di leen jox ci kanam tuuti incha allah ci seen émission tafsirul quran ci kanam tuuti incha allah man xam ma tafsirul quran sax wala tadafirul quran <laughs> tafsir <laughs>